ramadan weeru njéggale alhamdulillahi allazi hadaana lil islaam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah addal amaana wa nasafa al umma wa jaahada fi llaahi xaxa jihaadihi amma baad uxayikum bi taxiyati lislaam wa hiya assalaamu aleykum wa mbokki jullit ginnaaw bu ñu santee borom bi tabaaraka wa di julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngi seede ne amul benn buur ku dul yàlla waaye di seede it ne muhammad sallallahu alayhi wa ndawam la moo ko yónni ci jaam yi amma baada ginnaaw loolu nag muy leen di nuyu ci nuyu bi gën a tedd muy jàmm ak salaam ak yërmandeeg suñu boroom yàlla na wàcc ci ñépp ginnaaw loolu mu ngi jiital nuyoo ci kër gi ñu nekk muy Tektal TV waaye di wasaare nuyoo fépp waaye nekk di seetaan ñu ngi lay nuyu mbokki julliti xam ngeen ne ñu ngi waajal li nga xam ne kat mooy koor ñu ngi dugg ci li nga xam ne mooy weer bu màgg muy chehru mu mubaarak weer bu màgg weer bu suñu boroom fonk kon weer boobu xam ne ñu ngi nii daanaka di ci dugg te yàlla nañ ko fekke jàmm dugg si bismillahi rahmaani rahim waaye génnee si alhamdulilahi rabbil alamin boo xoolee ne kat am na ñoo xam ne kat daaw fekke woon nañ ko waaye ren fekkewuñu ko ñooñu de yàl na leen yàlla yërëm yàl na leen yàlla jéggal seeni bàkkaar waaye ñun ñii xam ne it ñoo fi des lu mu yàgg yàgg dañuy dem fekk ji leen waaye ñun ñii fi desit yàlla nañu yàlla yërëm jéggal ñu te li ñu fi nekk li ñu nekk ci àddina bi di ko dund yàlla nekk ay dund yoo xam ne dund bu sell dund bu suñu boroom gërëm ci jaamam yépp nag jullit yépp mbokki jullit yi xam ngeen ne weeru koor de war ci jullit bi mu fonk ko waaye mu def li nga xam ne kat mooy wareefam lan mooy waree fam mooy muy woor te yàlla tax woor bi bu ko def ngir kenn def ko te yàlla tax waaye jaamu yàlla bi tamit def ko te yàlla tax gis nga loo def te yàlla tax dañ si am fay suñu borom dangay gis ñoo xam ne kat dañ naan ah damay woor ndaxte ah samay parents ñoo ma forcé wala ah naa woor nii rek naa kii nii rek mais daal su ma demee ba loolu bu ma sonnee damay arrêté xam nga kon loolu yow xooloo sa diggante ak sa borom parce que bu fekkee ne yow yaa ngi woor bi isnillahi taala te yàlla rek tax bu fekkee yàlla rek nga si jublu kon yàlla moom nga siy am waaye bu fekkee nag nit a tax nga si nga koy def wala ngir nit ñi ñu ngi def moo tax may def déedéet loolu doo si am fay suñu boroom kon jullit bi. woor bi faratala la si moom lu ko war la comme ni julli ware waaye nag woor dafa nekk na nag booy woor du ak la wasur bi rek de lekk geex naa ni kese moom nga war a bàyyi déedéet laa du loolu woor bi dangay wooral say cër waaye it dangay wooral li nga xam ne mooy sa làmmañ waaye dangay wooral li nga xam ne lépp loo xam ne rekk lu nekk ci yow la dafa war a woor danga war a téye sa làmmañ bul wax mukk loo xam ne rekk lu neexul suñu borom bi la bu ko génn mukk sa làmmañ bu ko def ndaxte jullit bi loolu war ko bu fekkee sax nit dafay ñëw si weeru koor bi bëgg la indil ay wax waxu jàmbur inni saa im man dama woor bu nangu mukk lay yàqal parce que weeru koor dafa nekk loo xam ne dafa tedd dafa màgg suñu borom bi daf ko fonk comme daf ko fonk nag kon yow danga koy fonk surtout loo xam ne nag yow yow lay jariñ daf lay jariñ fii si àddina jariñ la si àllaaxira teg si nag may la ak wér ndaxte suñu borom bi kat lu mu dogal si jaamam yi rek loolu moo gën te suñu borom du dogal mukk nag si jaamam yi loo xam ne gënul si ñoom wala loo xam ne antaluñu ko lépp lu suñu boroom dogal si ay jaamam rek loolu ñun dañu ko antal moo tax mu teg ñu ko. kon bu kenn nekk nag ah man de du ma woor man de wala su ma wooree ba si digg ba am ngànt euh, dootuma woorati man duma ma diggante sama boroom bor loolu fu mu am subhanallah du ma diggante sama borom bor. te yow suñu borom sant la nga war a def nga war a def suñu borom wax la lu leer ngay toog di wax amoo loo dul wax lu dul naan duma diggante sama sama borom bor man dama koy dégg ci yenn jigéen ñi ñu koy wax subhanallah mbokk yi loolu nit ëpp na sax di ko wax kon woor jaamu yàlla la kon koor gaa ngi nii di ñëw mbokki jullit yi koor gaa ngi nii di ñëw daanaka dugg na ganese na kon nañ ko woor te yàlla tax ku ko mën a woor na nga woor képp ku dem koo xam ne yow mënoo ko woor dafay fekk ne ngànt la feebar bu la yàlla teg ba mënoo ko ba mënoo ko xayru te bu boobaa am na charte yoo war a def waaye bu fekkee dara jotu la dara yaa ngi ànd sa wér yaa ngi ànd sa kàttan sa doole mën nga def ko ndaxte sa njariñ la sa njariñ la fii si àddina waaye sa njariñ la it fële ñu jëm muy yombal xiyaama ndaxte suñu boroom kat moom moo farataa suñu koor baad auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim suñu boroom bi dafay wax mu ne yaa ayuha lazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lazina min xablikum laallakum tattaxuun mu ne yéen ñi gëm de maa farataal si yéen koor yéen ñi gëm maa farataal si yéen koor comme ni ma ko farataale woon si ñi leen jiite woon la'allakum tattaquun ndax ngeen ragal yàlla kon loolu farata la farata la dañ ko war a def dañu war a woor dañu war a téye suñu làmmiñ dañu war a def lu baax lépp loo xam ne rek ay xasanaat la da defal yu baax la lay jëmee na nga ko def bul pedd sa temps si dara surtout weeru koor bul pedd sa temps si dara parce que temps bu dem du ñëwaat sox mbokk yi temps bu dem rek du ñëwaat te looy gën a dem di gën a jege sa li nga xam ne mooy sa dee kon temps dafa cher fexeel ba boo wooree boo xëyee li nga war a njëkk a def gannaaw ba nga defee li nga xam ne mooy say julli. nga def ko ba pare bu fekkee da ngay liggéey demal liggéey bu fekkee liggéeyoo toogal sa kër mais avant ngay def dara jàngal alxuraanul karim nafar xuraanul karim jàng alxuraan ay xasanaat yu bare ngi si jàngal alxuraan defal ay azkar ay tahajjud naafila loo doon naafila na nga ko yokk loo doon jàng alxuraan mbokk yi na ko yokk loo doon saraxe na nga ko yokk ndaxte loo def rek suñu borom bi daf la koy dubleel loo def su lu baax rek suñu borom bi daf la koy dubleel ba si kii xam ne sax weeru koor mu ngi togg defar ba mu neex te ànd see xol bu sell xol bu set defar ko ba mu neex togg kooku sax waaw mais loolu mbokk yi bonus la xam ngeen li naan bonus woor ba ngoon dem marché ñëw togg jox ñi ñu lekk loolu rek xamoo lan la si suñu borom bi di defal kon loolu ginnaaw bu la yàlla fayee nag sa koor googu te fekk def nga ci lu baax mu defal la ko euh, ay xasanaat lu baax a pare nga teg si nag di togg di jox nit ñi ñuy lekk rek loolu kese rek daanaka ay bonus la yoo xam ne yàlla daf la koy fulandil di la ko dollil boo xoolee réew mi ñu nekk muy Sénégal macha allah. waaye di jóg jóge defar ay ndogu ndog yi bari na dangay dox ci mbedd mi sax ndeysaan bu heure dog jotee nga gis ñëw jox la kaasu café buñ joxul café ñu la jox tàndarma loolu rek rek rek xamoo lan la suñu borom defal loolu rek ay yiw la man dama naan Sénégal fii la teraanga ëppee macha allah balaa sa xol bi di sedd rek nga nekk ci weeru koor bay dox ci mbedd. ba heure doog jot da gis ñëpp ñëpp ngay gis ku ne yaa ngi génn looy am joxe loolu mbokk yi lu baax la buñ ko xeeb mukk waaye na fekk it nga koor googu la ngay def nag mu nekk nag yéene bu sell li ngay def mu nekk loo xam ne danga si ànd ax yaxiin waaye ànd si tam ax euh, amuur waaye def ko tam li wajhillaahi taala def ko tam te yàlla tax kon mbokk yi weeru koor a ngi nii yàlla nañu yàlla defal ñu am si ay yiw yàlla nañu yàlla defal sàmmal ñu su li nga xam ne mooy suñuy cër sàmmal ñu li nga xam ne tamit mooy suñu làmmañ ba si sa loxo sa lépp lépp boo doon def lu bon arrêté ko doonte sax lu weeru koor sax yow doomu aadama bi nga xam ne jullit nga sax def loo xam ne sax lu neexul yàlla la loolu waru la rawatina nag weer boo xam ne weer bu ñëpp fonk la dangay gis weeru koor dangay gis ay kër yoo xam ne dañuy teg ci lekk mais yow looy lekk-lekk donte bu fekkee ne sax yow mii danga am ngànt rusal suñu borom bi bu lekk mukk foo xam ne ay nit a nga fa toog parce que ndaxte dañoo woor bul ko def mukk même bu fekkee da ngay dox ci mbedd mi sax yow wooroo sax ruusal te jullit nga ruusal di jël sa lekk di ko lekk ci kanamu ñu woor ndaxte loolu yëpp loolu yëpp kersa la parce que nit ki tam dafa baax ci doomu aadama kersa mooy lan kersa mooy kat ah man kat ñii ma dëkkal man kat yàlla def na mënuma woor walla ngànt laa am. am na loo xam ne kat su ma koy def war ma ko def sax si kanamu ñu woor su may lekk naa dugg sama biir nekk ma lekk bu dee ca école ba la bu dee bërëbu liggéeyukaay bi la lu mu mënti doon rek nëbb ko ngir lan ngir lan màggaayu ramadaan kon weeru koor mu ngi nii ñëw na yàlla nañ ko fekk ci jàmm waaye yàlla nañu yàlla defal ñu ànd ak ngëm yaxin waaye yàlla nañu yàlla defal ñu siy def li nga xam ne mooy as ay xasanaat yàlla nañu yàlla defal tamit ñu siy def ay taxajut di naafi la jóg guddi boo tëddee ba xaaju guddi nga jox bu la kenn yëg mooy jaamu yàlla bu la bul def mukk loo xam ne rek nit da la koy gisee defal li nga xam ne yow sa diggante ak sa borom kese la kenn newu fa nga jóg xaaji guddi naafi la def sa ay taxajut yu baax jéggalu say bàkkaar jéggalu say bàkkaar tuub boo waree toog di waxi jàmbur jëlal nga def say askar boo waree toog yor sa portable sax portable whatsapp yi xew nii yooyu jëpp jër ka teg ka fële bu la kenn yàqal bu la seytaane yàqal te seytaane sax foofu am fa yoon ndaxte yonent bi sallallahu alayhi dafa wax lu leer qaala alayhi salaatu wa isaa jaa ramadaana futixat abwaabul jannati wa uxlixat abwaabu naari wa sufidat shayatin yi alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne de bu ñëwee weeru koor dañuy ubbi li nga xam ne mooy bunti àjjana mbokk yi loolu neex na ubbi buntu àjjana yépp juróom-ñaari buntu àjjana yépp nañ lay ubbil mbokk yi ngir lan suñu boroom dalay faciliter jaamu yàlla bi lépp si yërmandeem nag waaye nag mu ne nag dañuy tëj bunti safara kon foofu seytaane amu fa yoon kon foofu dama xamul woon wala dama mën amu fa yoon laa dañuy tëj bunti safara kon foofu waroo def dara loo xam ne rek war na la jural bàkkaar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ba tey ne kat wa sufidati shayaatiinu dañuy tëj dañuy tënk li nga xam ne mooy lan mooy seytaane kon foofu waroo wax ne ay man de seytaane moom ma man man de man kooru tey bii ah bëggoon naa woor demee di laa hmm, mbokk yi déedéet seytaane am fa yoon seytaane mënul si yow dara ndaxte waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ sallallahu alayhi wa sallam du dañ mukk kon mbokk yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax yoonu jaamu yàlla mu ngi nii rawatina nag weeru koor rawatina weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax kat mu ne man sooma ramadaana imaanan waxti saaban gufira lahu ma taxaddama min zande rawaahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax mu ne ku wóor weeru koor ku wóor weeru koor imaanan te imaan rek nag tax ka jóg imaan ngëm ngëm lu am solo la ci doomu aadama li ngay def nanga ko gëm nanga ko gëm te yàlla tax mu ne wax si wax waxti saaban booleex nag di def lu baax def lu baax mu ne wufira lahu ma taqaddama min zanbihi mu ne dinañ la baal sa mboolem bàkkaar yi jiitu ak yi mucc ah mbokk yi loolu neex na loolu neex na torop torop torop suñu borom bi moo am yërmaandi si ay jaamam xam nga loolu lu neex la suñu borom bi am na yërmaandi si ay jaamam torop mais nag lu mu am am yërmande si ay jaamam na fekk tam nga nekkal suñu borom nekkalal yàlla ba pare mu doog la nekkal kon mbokk yi daanaka duma guddal li may wax daal mooy maa ngi fàttali sama bopp di fàttali mbokki jullit yépp di wax ne mu ngi nii si weeru koor yàlla nañu yàlla defal ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim comme ni ma ko waxee woon waaye génnee si it alhamdulillahi rabbil def si li nga xam ne mooy ay yiw di def ay azkar di tudd yàlla foo mënti nekk moo xam si bërëbu liggéeyukaay bi la moo xam ci kër gi la moo xam dangay togg moo xam ilaa axir loo mënti def rek na ngay tudd yàlla foo nekk na ngay tudd yàlla waaye nag waaye nag na ngay def lu baax di naafi la di jàng alxuraan foo toll del jàng alxuraan foo toll rekk del jàng alxuraan ndaxte kat weeru koor mooy weeru alxuraanul karim kon mbokk julliti maa ngi leen di ñaax di ñaaxaat sama bopp di wax ne nañu góorgóorlu nañu jaa gën a góor góorlu si li nga xam ne mooy suñu diine rawatuna nag weeru koor bi ñuy dëgmal nañ si gën a góor góor lu gën a jàpp gën a def li nga xam ne moo neex suñu borom bi di saraxe di wax lu baax sa làmmiñ bul si génn mukk loo xam ne dalay jural bàkkaar mukk kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp sami naaw ataana yàlla nañu ko yàlla defal dégg ak topp waaye yàlla nañu yàlla defal tamit ñu nekk ñoo xam ne lépp luñ si jaamu rek suñu borom nangul ñu ko waaye mu fulandil ñu ko nag si loo xam ne rek ay yiw yuñ si def la waaye di ñaan suñu borom bi subxanahu wa taala yàlla nañu yàlla defal tamit wér parce que wér boobu lu am solo la si wér boo xam ne di am kàttan boo ko wooree ndaxte koor mbokk yi yàggul weer rek la weer dafa gaaw. rawatina weeru koor nag daanaka fiñ ñu siy duggee ak fi siy génnee benn la kon yàlla nañu yàlla jàppale jàppale mboolem jullit yàlla nañu yàlla defal euh, tawféex defal leen ko waaye defal ñu kayit di jéggal bu baax nag ci kàddu yi bu jubee suñu borom bi subxanahu wa laa la jóge waaye lu ci safaanu it ngeen xam ne matadib doomu aadama moo mel noonu ma leen di nuyu di nuyu ñëpp. di nuyu fii bërëb bi ma nekk muy Tektal TV di nuyu képp koo xam ne rek mu ñuy seetaan wala dañuy déglu waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah